man tamit am nawle am liggéey laa fi toogal damay damay dama ciy tontu rek par rapport ak ñun ñun on a proposé ce point euh, tey jii aujourd'hui ñun euh, dañu dañu dañu jàpp ne que justice bi fi mu toll nii ak implication yi nga xam ne euh, ci li ñu jot dund moo lay wan sa ëllëg nan nga koy def uh-huh. dañuy créer li nga xam ne dañ koy woowee une haute autorité de la justice nga xam ne collège électoral lay doon comme tey jii xam nga Euh, boo jëlee dëkk yu mel ne États-Unis mhm. le procureur le président ne peut pas exercer son autorité wala wala benn ministre de la justice sur le procureur mhm. parce qu'il est élu mhm. par un collège électoral yoo xam ne ce sont des voix autorisées yoo xam ne dinañ ko may de même que le conseil constitutionnel conseil constitutionnel bi xanaa juge bi juge yi dañu di jàmbaar rek te population sénégalaise bi gën leen jàmbaar ñoom ñi leen teg choc mais cinq juges conseil constitutionnel nommés par le président de la république c'est pas normal. sept kay. non deux yi nee nañ yi la ñu kii. lañu yi la la ñu élire nee nañ. cinq yi deux yi kan moo leen élire. c'est leur père. waaw leur père mais cinq yi moom moom moo leen moom moo leen di tànn léegi xam nga yow donc. du coup seen père ñoo def proposition. waaw ah? ñoo def proposition. man sax billaay xamuma sax ña ca def proposition mais cinq yi rek la président président war si tànn kenn parce que ñoom il joue un rôle d'arbitre on peut pas être juge et partie aujourd'hui boo jëlee euh, situation bi ñu nekk tey conseil constitutionnel nee naa la xanaa dañoo dëgër rek booleex li leen gën a dëgëral mooy population sénégalaise bi instant bi mooy conseil constitutionnel numéro un. Mhm. ñoom deux lañu. Mhm. léegi boobu noonu moo moo tax mais tey jii mais mënoo lii mënoon na jur lu ne. en en en euh, kii euh, conseil constitutionnel validé woon na fi troisième mandat bu président Ablaye Wade. Mhm. alors que c'est pas dans la constitution bi ñu yeggee ba ca urne yi population bi sanctionné. les gens c'est pas que dañu doyloon ci président Ablaye Wade parce que man tey su ma doon. tànn rek ci président yi fi jot a jaar man moo ma ci gënal. Ah. mais c'est pas que dañ ci doyloon mais constitution bi les gens y parce que mooy suñu garde-fou. Ah. tey jii moo tax. tey jii bés bu ñu amoon dictateur mu wóor ñu ne kii kat li muy doxal neexuñu mais au bout de deux mandats dina dem bu baaxee itam même bu fekkee il est excellent excellent le président aujourd'hui yàlla bindul benn nit rek mu excellent ci biir humanité bu mu demee xëy na am na ci suuf ku ko gën a xarañ koo xam ne dina ñëw doxal ko et donc euh, yooyu la daal mais daal vraiment euh, ki autorité de justice boobu ñu propose